mbokki internet ñu ngi leen di nuyu di leen di dalal ci seen chaîne d'information leader Sénégal 7 TV di am mbégte di janoog yéen ci entretien spécial bi ñu leen jagleel tey fas yéene ci ànd ak euh, suñu invité docteur Ousmane Diallo lay wuyoo docteur Ousmane Diallo di secrétaire général bu MRDS MRDS mouvement de la réforme pour le développement social nekk en même temps médecin il est aussi docteur en épidémiologie Office de Health Informatique nekk également enseignant et formateur à l'université de Wisconsin aux États-Unis euh, ñëpp si fii nag Sénégal en 2021 docteur Ousmane Diallo ñu ngi lay nuyu di la ci Sénégal 7. Euh, jërëjëf euh, Birama. Hmm. Thior maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi mu ma def di nuyu suñu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. Hmm. ci Sénégal 7. Mhm. maa ngi la doon tooñ euh, seen logo bi ma ne man seen logo bi daf ma xaw a jaaxal ndaxte logo bu am solo la. daf la accroché quoi. waaw daf ma accroché. <laughs> <laughs> merci beaucoup merci docteur donc on entre dans le vif du sujet ci li gën a fës actuellement ci actualité mooy euh, la présidentielle qui s'annonce on ne sait pas actuellement à quelle date. Euh, mu mel ni nag jëloon nga part participer nga ci li nga xamante ne moom mooy le dialogue national dialogue boobu sax président de la république Macky Sall ñu war ko jébal conclusion yu fa dialogue bi lan moo waraloon sa teewaay. Ah, en fait euh, merci beaucoup damay remercier d'abord ñi nga xam ne ñoo tax ba ma demoon ci dialogue bi mooy sama secrétaire général adjoint euh, docteur kii Ahmed Diouf. Mm-hmm. moom moom ma demoon utal kii euh, rendez-vous pour ma ñëw bokk ci dialogue bi invitation. en fait li ma intéressé woon mooy dama ñëwoon pour jàng. jàng euh, damay dégg ñuy wax ay dialogue dialogue président lii président là mais musuma fekkee dara. Mm-hmm. au niveau ci ci euh, niveau boobu. moo tax man fekk Sénégal. États-Unis ma woon États-Unis en fait jour bu dialogue bi jour bu dialogue bi amee ci laa wàcc aéroport. Hmm. dem directement. Euh, rien que pour prendre part au dialogue. rien que pour pour jàng. Hmm. donc euh, ñëw toog ak gars yi xool seet ñi nga xam ne ñooy la classe politique ak ñi diriger dëkk bi tant que toog ñoom gisoo gisoo leen doo xam réellement ñan ñoo yore sa réew. Hmm. loolu moom fa yóbbu woon. alors jàng nga wax lan nga fa jàng. bon dama fa jàng li ma fa njëkk jàng mooy euh, folklore bi. ah bon waaw dialogue bi c'est euh, un dialogue folklorique euh, dafa mel ni ñoom wax nañu waxoon nañ ma ko. Hmm. ñu bëri waxoon nañ ma ni président suy def dialogue noonu la day am plan ba rek programme affaire am yëpp ñëw taxaw toog faire semblant de de dialoguer. Hmm. décision yi nga xam ne moom la jël moom la bëgg. Hmm. moom la ñuy jël foofu ñu entériner ko. en tout cas dégg nañ ko sax mu ne. Euh, c'est vrai que dialogue bi am na solo mais le dernier mot lui revient après moom mooy jël dogal. absolument et te dem ba benn moment boo xam ne am na ñaari discours yu ma mëne loolu ci jàngat la. ci hmm. li ma jàng ci dialogue bi mooy hmm. ñaari discours la ne discours bu mu wax en français boo xam ne dafa nekkoon ku calme posé. Hmm. ak discours bu mu def en wolof bokkul ak discours bu mu def en français taxaw ci artu mais euh, xam nga ne ku mu neex ku mu neex ñu ñëwul si dialogue bi les récalcitrants waaw ku ñëwul sa bopp nga sa bopp nga defal sa xam nga ñu mel noonu ku ku gedd xam nga sa su maam ay <laughs> wax yu mel noonu ku ñëwul sa bopp nga ko def voilà exactement loolu donc loolu ça m'a un peu choqué quand même bi may seet mais ma xool aussi ñi euh, kii bi meloon ñu jël parole et cetera mhm. ñaari sëriñ Dakar ñëw c'était mhm. intéressant de voir mhm. parce que dama dama fàtte lu bëri ci sociologie sociologie sénégalaise. Mhm. Euh, gis naa ni daal vraiment am na ay problèmes yu mag yoo xam ni au niveau de la classe dirigeante. Mhm. que dafa mel ni dañ nekk en défasage ak fii askan wi tool défasage ak fii société toll. ak mhm. fii modernité toll. donc euh, loo mu fa yóbboon. alors li ci tukkee loolu moo la fa yóbboon am nga si ay jàngat euh, bu ñu sukkandikoo ci li nga expliqué ni on a l'impression que dialogue bi. amul woon pertinence bi war a mënoon tax nit ñi dajalee pendant ces deux jours là de discussion gisoo pertinence bi non non non su fekkente noonu ne jaare na yoon mhm. par exemple dama jàppoon dañu nekk dans une période charnière mhm. euh, élection yoo xam ne dàq nañ leen climat délétère bi fa am mhm. nit ñi violence bi am au niveau du discours violence bi am au niveau de la rue nga ñëw ñu ool yéen ñëpp maanaam ci président au opposition man pour man dama jàppoon opposition waroon na fa nekk ne serait-ce sax pour bloquer consensus bi. Mm-hmm. ne serait-ce que ça. en tout cas waa PDS ñu ngi fa woon te ci opposition bi lañ fare. <laughs> PDS moom non xam nga dafa am loo xam ne man man mosuma gëm ni PDS mm. fu mu nekk nii ak mm. Macky dañ nekk en opposition. Mm. man gëmuma loolu. mais gëm nga ne PDS opposition la parti d'opposition. waaw parti d'opposition la dans la mesure où ñoom bokkoon nañ ci benn coalition wàllu Sénégal. Mm-hmm. dem élection am seen i seen i am seen projet. mais Macky Sall ci ñoom la jóge ñoom ñoo bokkoon donc pour dama jàpp ni c'est une classe euh, libérale mm-hmm. mu ñu wax ay des démocrates euh, libéraux là ñoom ñoo fa nekk euh, ñoom ñoo bokk gis-gis ñoom ñoo bokk xalaatin ñoom ñoo bokk fu ñu nampee mm-hmm. fan lañ nampee mooy ci Ablaye Wade mm-hmm. donc jàpp naa ne amul différence mag entre Macky Sall ak PDS d'ailleurs sax soo gisee jukko yi ak affaire yooyu du point de vue politique ñoom ñoo bokk ñuy doxalee Abdoulaye Wade dafa gën a civilisé rek. <laughs> mais est-ce que docteur ci dialogue bi puisque yaa ngi fa woon. Mhm. assister nga peut-être euh, les travaux de commission ñaari commission la woon. am na commission bu waroon réfléchir ci date bi. ban date la ñu war a amal la présidentielle am beneen commission bu war waxtaan ci transition bi la transition mooy au-delà du 2 avril. Euh, kan moo war a nekk ci bopp réew mi ndax président de la république Macky Sall mooy continuer wala day jox keneen est-ce que jéem nga jël parole pour joxe sa grain de sel. bon bi may njëkk dem ci plénière la njëkkoon bëgg jël parole mais uh-huh. en euh, tout. vraiment aw amoon occasion pour dem euh, wax. Seydou Gueye nag mu ngi ne am na ñu ñu ñu seen tur waaye moom moom moo décidé duñ lañ jox parole moom waxoon na ko soo dégloo. plénière waaw uh-huh. archive. on l'a entendu plénière bi. Uh-huh. mais bi ma demee ci man j'ai choisi euh, après la commission le 2 avril. transition bi transition bi. Euh, c' était important pour man pour ma jàng tuuti. parce que tam mhm. boobu dafa amoon ay ay kàngam. Mhm. donc Ismaïla Madior Fall moo ko moo ko dirigé woon la tailleur constitutionnaliste. ah moo ko dirigé woon léegi y avait aussi un autre Mounirsi y avait d' autres juristes. Mhm. moo toogoon foofu pour xool nan la ñuy réfléchir nan la ñuy jàngee. Euh, li ñu njëkk jaaxal mooy ñoom ñëpp amoon nañ consensus lu ñu bëgg mooy après le 2 avril président na toog. président Macky Sall na mu def passation de service avec le nouvel élu mhm. pour ñoom dañ jàpp ni constitution bi da ko da ko ko may puisque dans la constitution du Sénégal mhm. le 2 avril ni est pas cité c'est pas comme aux États-Unis ba dañ lay wax le 4 novembre ngay war a def élection mhm. fii dans la constitution sénégalaise amul 2 avril amul 2 avril préciser wuñ ko préciser wuñu kañ lay mandat bi di commencer kañ lay mandat bi di jeex d'accord léegi nag euh, bi mu bi gars yi waxee loolu ñu bëri ne la dañu bugg ñu dàq élection yi euh, dégg ñu ñu président toog ba élection yi ñëw ba mu def transition après le 2 avril ba mu def euh, passation de service après le 2 avril bu boobaa tamit discussion bi ñaari position moo fa am mhm, ban ak mooy waa PDS ñoom dañu jàpp ni dañu war reprendre tout le processus et cetera ñu bloqué la ne non lii on parle que de transition mhm. on parle pas d' élection mhm. Euh, après, ñu il y eu la, la position courageuse de, du délégué de Cheikh Bamba Dièye. maanaam mm-hmm. moom ñoo bokkoon position foofu. Mm-hmm. li ñu wax mooy. mais jot jot nga joxe sa position. bien sûr. Mm-hmm. bien à la fin. à la fin et ça a un peu de remous. Ah euh, parce que li ma mën a wax mooy dafa am ñaari lecture. mooy ban ak su fekkente ne da nga bëgg def du juridisme. maanaam wala légalisme nga jël ay lois ay règlements di ko lire. pour baser sa sa sa sa analyse. Mhm. wala est-ce que c'est une décision politique. Mhm. pour man dama jàpp ni mënoo def juridisme sans sans am une lecture politique de la situation. Mhm. Euh, man sama position moo doon. Euh, bi <clears throat> bi jëlee article trente ak article je crois trent six. ñoom ñaar lañu ki jël euh, Ismaïla Madior Fall. pour expliquer ne li xew nii su fekkente le avril président bi. kéem mandat mandat bi day jeex mais moom jàpp na mandat président jeexul. tant que moom Ismaïla Madior mhm. mais li ma wax mooy président si boppam moo taxaw ci kanam askan wi comme ku nen moom dafa am dafa rekk gor. Mhm. moom moo ne le 2 avril mandat am dafay jeex. Mhm. dafay quitter le pouvoir mandat am dafay dem moom moo ko wax. wax na wax na ko également bu yàggul dara. à euh, Twitter. waaw comme quoi que sa décision elle est ferme. kii irrévocable avril dafay daal di quitter. day quitter donc. li Ismaël Madior Fall wax mooy dafa am benn vide institutionnel. Mhm. vide la la tudd. mais est-ce que cité na article 36 2 parce que gis nañ ne président. cité na yi boobu lay cité. cité na ak yeneen yeneen defal ñu benn benn suppu ci yooyu la sukkandiku. sukkandiku pour wax ni président dafa a toog. Mhm. léegi ñun lu ñu ko wax mooy euh, dañ ne la mooy vacance du pouvoir. Mhm. pour définir pour définir vacance du pouvoir. lu ñuy jël mooy les trois conditions. maanaam ce sont les conditions qui déterminent la vacance mhm. maanaam en cas euh, de démission mu ne président démissionné wul mhm. kii yow moo jeex mhm. en cas d'empêchement définitif après ci boobu la dugg ci la mooy empêchement définitif su feebaree wala et cetera wala en cas de décès bu boobaa man li ma def mooy dama ne mais attention man pour man li ma jàpp mooy démission dafa am ñaari forme de démission man mun naa démissionner bind une lettre de démission Mhm. wala mun naa disparaître. de mu wax démission de fait. Mhm. et je citais le cas Mimi Touré. Mhm. Mimi Touré à l'Assemblée nationale, nationale on l'a sorti pour dire que moom elle a démissionné de fait. donc euh, loolu laa doon kii kii ak moom mais xam naa ne comme moom mooy juriste bi. donc dama doon yëngal rek quoi. mais nit ñi ñu duggee ci commission bi euh, docteur Ousmane Diallo. ak ah. ñu génnee également euh, ci travaux yi jamono bi ñu boucler à 15 heures 16 heures on a l'impression que y Euh, simulacre de consensus bi am parce que nee nañ daanaka xëccoo bi sa bëriwul woon noonu dafa mel ni daal mbir mi yomboon na trop quoi pour que nit ñi déggoo ci transition bi pour le président de la république euh, daal di woyal au delà du 2 avril est ce que concrètement noonu la demee dañuy ñëw rek waxtaanee ko rak tak Ousmane Madior Fall teg non non loolu nag moo tax yi affaire yi jàll moo tax loo fekkeewul mënoo ko nettali mm-hmm. mais concrètement lan moo xew ci biir amoon na ay divergence profonde mm-hmm. wax ji bëri woon na mhm. xuloo bi am na ay xuloo ay jàppante sax mhm. bi amoon ci biir man da man affaire bi man damaa toog di xulli sama bët di di ree quoi ci suuf <laughs> mais amoon na vraiment des contradictions mais li ma xam moo am mooy ñoom ñëpp seen intérêt la mhm. Macky toog ñi nekkoon ci commission bi commission bi ñi si gën a bëri à part waa FS FSDBJ Cheikh waa Cheikh Bamba Dièye ak ak man donc boobu mooy doon différence ñu ñoo doon nee dañu war a président dafa war a dem. ñu mhm. dimbale ko taxañal koy bagaasam gunge ko aéroport mu dem conseil constitutionnel gis euh, statuer sur la vacance du pouvoir. Mhm. jox le président de l'Assemblée nationale. Mhm. mu nekk mu mu assurer la suppléance. am na ay limites yoo xam ne moom su nekkee su fekkente ne da da ko jël. en tant que suppléant. amul yenn pouvoir yi li ko li li ñu koy sant mooy. affaire courante ak deuxièmement mu dem ba organiser élection yi dans les soixante et quatre-vingt-dix jours mhm, dans les quatre-vingt-dix jours mhm. alors très bien li tukkee ci ñaari commission yi mooy commission bi war a saytu mbirum date bi ban date la ñu war a amal la présidentielle ak beneen commission bi nga xamante ne moom moo waroon waxtaan ci transition bi te nga bokkoon ci commission boobu li ci gën a fës ci conclusion yi fa tukkee te ñu war ko jébal le président de la république ni ki tey altine yemoo 4 que bëgg nañ ñu amal élection bi le 2 juin 2024 à l'approche de de la période d'hivernage mu mel ni président de la république ci euh, allocution bi mu def bi ñuy ubbi dialogue national bi euh, junjoon na li nu mel comme quoi ak lu mënti xew bëgg na organiser la présidentielle avant l'hivernage transition bi wax nga ko euh, juboo am na ci ci ñaareelu commission bi comme quoi que à partir du avril président de la république mën naa wëyal wax nañ également mbirum 19 candidats yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom la conseil jotoon validé pour ñu war a dem ci ci jongante bi ñu jàppoon ne xëy na dañuy ubbi pour ñeneen ñi mën a ñëw dugg bu ñu nee ñeneen ñi on pense à Karim Wade on pense à ñeneen ñi nga xamante ne yóbbu woon nañ seen fichier au niveau du conseil constitutionnel amoon ci jafe-jafe clé ñii amoon ci jafe-jafe doublon interne externe ñii ne sax am na ay régions yoo xam ne comptabiliser wuñ ko loolu yëpp nag ñu war ko boole tey <clears throat> jox ko le président de la république Macky Sall moom mi nga xamante ne jàpp na ne moom moo yore le dernier ndax jàpp nga ne conclusion yi fa tukkee proposition euh, yi nga xamante ne jël nañ ko fa président de la république bu ko jëlee na ko mën a conforter ñu dem ci euh, consensus boo xam ne dootul am benn coow. bon euh, pour pour um un peu de clarification. Mhm. Euh, gis ñun ñun personnellement man personnellement jotuma mhm. conclusion parce que normalement. Mhm. Ismaël Madior daf ñu waroon yónnee. les les conclusions des travaux comme ça ñu gis ko. ñu xam lan lañ lan la décidé. mais defu ko. Euh, gars yi dañu waxoon comme ni ñu wax rek toujours. Mm-hmm. wóolu nañ ko na def lu muy def. MRDS moom MRDS moom du wóolu kenn MRDS du wóolu kenn dañ ne toujours. Mm-hmm. balaa ngay yónni yónni moom comme ça su ma amee ay réserve ma def ko wax waxtaan wax nañ ko mais faale wuñu mm-hmm. euh, c' la même chose avec Yewwi. mais ko dinañ si dellu. léegi euh, am na ay imam yoo xam ne bokkoon nañu ci première kii bi. commission première commission bi ñoom ñoom ma expliquer grosso modo li xew. li xew mooy dañu calculer. ay tabaski. Mhm. dañoo calculer Ramadan. dañoo calculer aussi euh, surtout. Euh, événement dàkk bi euh, événement dàkk bi ak mhm. ak ak kii bi aussi saison des plus mais li ñu wax mooy. Mhm. à partir du 2. c'est pas le 2 avril. le 2 juin c'est pas le 2 juin. c'est à partir du 2 juin. balaa ñuy con def dara dañ ko def à partir du 2 avril. du 2 juin astafurlah donc loo mooy wax ji. loolu loo ci dégg à partir du 2 juin. ça veut dire que mën na mën na jóge mën na nekk le deux juin. mën hmm. na nekk le set mën na nekk ba passé le 2 ba dem ba décembre le 15 hmm. décembre. le 15 décembre. tout dépendra parce que waxuñu nu date exacte dañ ne à partir. Hmm. léegi nag suñ ci génnee hivernage. on tombe dans tamit am na beneen vide bu fa am est gëm nga ne comme ni ma la ko waxee sànq bu président jotee proposition yooyu noonu euh, dina ko mën a doxal ba consensus am ci quand on que am na une large majorité euh, une frange de l'opposition ñu bokk ci FC 25 ak waa société civile ñoo xam ne ñëw ñëwoon wuyu si appel au dialogue bi est-ce que loolu bokk na ci li mun a stabiliser réew mi jamono ji ñu toll nii loo xam ne mën nañ ko teg ci loxoy président de la république ko lii mooy conclusion yi tukkee ci dialogue national bi te ñu mun ti retrouver la stabilité et le calme bi nga xamante ne moom la ñu bëri bëgg actuellement ci réew mi. bon xam nga suñu wax stabilité ak calme dafa am ñaari ñaari ñaari aspect hmm, mooy ban ak ban. benn aspect bi mooy du point de vue sécuritaire. Hmm. parce que yaakaar naa ne président lu mu jàpp mooy il a su neutraliser. des hmm. forces bëgguma wax les forces révolutionnaires et cetera. mais ñi nga xam ne des forces de l'opposition mais force force révolutionnaire euh, docteur. pas révolutionnaire dama ne pas révolutionnaire bu mu wax révolutionnaire. Mhm. mais ñoo xam ne ñoo doon xeex. Mhm. ci mbedd bi. Mhm. tey soo xoolee depuis affaire yi jàll ça a beaucoup diminué parce que nit ñi commencé nañu am conscience. pour xam ni du solution. donc du point de vue de la stabilité du point de vue sécuritaire. deuxièmement beneen stabilité mooy. mu am un conscience mu am euh, kii mu toog ak nit ñi. nit ñi d'accord ci li mu wax mais nit ñi demul. donc ça a été un défaut par exemple euh, président Djibril Diop moom loolu la wax. Mm-hmm. moom il était là-bas ma koy ne mais loo fi def mu ne mooy man politique de la chaise vide du ma ko def. Mm-hmm. ma ne ko ah kon baax na kon léegi lan lañ fi jëlee mooy ñi nga xam ni ñoo mënoon porter combat bi du point de vue du débat nekkuñu foofu donc euh, ça ça posé un grand problème quand mm-hmm. mais li ma gis nag mooy peut-être que su fekkente ne léegi moom dem na. d'accord. ñu ñu ñu respecter le cadre institutionnel respecter constitution bi ñu def ñu bàyyi affaire jébbal lépp ci comme euh, euh, conseil euh, le conseil constitutionnel maa ngi def anglais sama bopp le conseil constitutionnel ñoo ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel ci boppam mm-hmm. mun nañu génnee ci guuta gi mm-hmm. en ce moment là jàpp naa ne waa F25 ñëpp d'accord nañu que su conseil constitutionnel décidé. Mhm. pour ñoom ce que le conseil constitutionnel a fait était quelque chose de courageux. Mhm. ñoom ñoo taxaw dindi décret wu président décret d'abrogation mhm. euh, de la convocation de du collège électoral. ñoom ñoo ko dindi donc def nañ benn acte boo xam ne c'est un acte courageux. mais man personnellement mon seul problème c'est que am na ay maa ngi koy wax waa PDS yi. am na ay accusations graves extrêmement graves yu ñu def ci ndodd conseil constitutionnel. ñoom war nañu raxas deru conseil constitutionnel wala ñoom seen bopp ñu indi seen preuve wala ñu jàppale. Mhm. man dama jàpp ñu c'est extrêmement grave. non ñu ne ñi nga xam ñoo def accusation ñi def accusation yi. Mhm. ñoom war nañ leen laaj li ñu wax nii fan lañ ko mhm. parce que tamit c'est extrêmement grave. ñu ne ubbi nañ information judiciaire waaw ci mbir moomu la xëy nañu bàyyi enquête bi. Euh, pour son cours poursuivre son cours. waaw mais man je vraiment kii bëgg naa xam. réellement. mais mais conseil boobu docteur euh, Ousmane Diallo. wax nga ko sànq en tout cas dafa mel ni si moom la ñuy demaat donte posé na acte boo xam ne ñu bëri jàpp nañ si c'est un acte courageux. Mm-hmm. waa FC 25 euh, jour bi ñuy ubbi le dialogue national demoon nañ fa également déposé ba ab recours. Mm-hmm. pour ñu mën a amal élection yi ci euh, calendrier républicain bi nga xamante ne ñoom ci lañ sukkandiku ba léegi avant le 2 avril. waaw au président la république déggoon na ko mu ne moom tamit day saisir le conseil constitutionnel. Mm-hmm. Euh, pour après le 2 avril mu jéem a xool nan lay gérer ay mbiram est-ce que loolu tamit du responsabilité boo xamante ne au niveau di conseil constitutionnel selon ci décision bi mu siy jël mun na nekk lu stabiliser réew mi wala mu yëngal ko. Euh, je disais tantôt foofu ci biir euh, kii bi si euh, commission bi mhm. doomu aadama li muy jàpp ne lii mooy indi jàmm mun nam loo mooy indi problème. dans la mesure où waa waa PDS bi ñu wax ni président dafa war toog. Hmm. pour ñu am jàmm. moo ne mën na am mooy indi crise pour ñi nga xam ñoo nekk de l'autre côté. conseil constitutionnel lu mu mun def mooy. Hmm. jël décision sur la base du droit. Hmm. su jëlee décision sur la base du droit mu oo ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo nekk dans l'opposition ñu toog ngay waxtaan. mais je crois que Macky dem. su demee ba dem en ce moment là gars yi toog. diisoo ci quelle la suite à tenir parce que man gëm naa ni ñi nga xam ni ñoo demoon ci àll bi ñefe ko euh, investir pour am seeni parrainage ba jàll conseil constitutionnel ñooñ dañoo war a continuer bokk ci élection yi dama gëm ni tamit su fekkente dañ koy ubbi xaw ma nañ dañ koy ubbee mais nañ ko ubbi comme par exemple ay Ousmane Sonko mm-hmm. wala Kële bokk mm-hmm. mais sur quelle base na nekk sur la base Euh, juridique sur, sur le droit hmm. su fekkente ne li ñu daan waaj Ousmane Sonko hmm. dafa nekk loo xam ne du dëgg hmm. bu boobaa on lui droit des excuses nationales balaa moo bokk Ousmane Sonko génn également biñ ne dialogue ñu bëri jàppoon nañ ni d'après information yi doon am saa yi la comme quoi que dañu initier dialogue bi rien que pour la personne d'Ousmane Sonko pour mu mun a génn fa mu nekk mooy ca Ndungu Sine mais li ñu gis mooy euh, y près de 400 détenus politiques en tout cas ni ñu koy waxee ñoom. Mhm. libérés jusqu'à présent. cas Ousmane Sonko de moins en moins maintenant on en parle est-ce que jàpp nga ne moom mën na bénéficier wu ci climat de décrispation boobu pour war a mën a bokk ci élection bi ngay wax. waaw e-, exactement su fekkente ne je ne suis pas très sûr. fu mu nekk nii nous sommes dans le cadre de la spéculation n'est-ce pas. Mhm. Euh, man loolu laa gëmoon au début. Mhm. man foogoon naa ni dina ko libérer. bi mu commencé di mel ni aussi. Euh, mënu ma wax am na deal am na discussion ñi ngi dialogue xaw ma li ma mën wax mooy li gënoon arrangé nit ñëpp mooy moom moom mu ñëw bokk ci élection yi sur la base du droit nag parce que lan lañ ko condamné c'est un problème su fekkee dañ ko condamné à tort nañ ko nañ ko redresser ses torts fay ko li ñu koy fay génnee ko raxas raxas deram mhm. su fekkente ne nag dañ ko condamné mu nekk dëgg tamit y a problème mhm. il faut qu'on aille man ba ma gëm ni tamit mhm. ala xaalin euh, droit mun na juum mais dañu war a ànd ak droit mhm. tout le temps mhm. mooy def li yoon en tout cas docteur il y a beaucoup de li ñu nemmeeku ci espace politique bi mooy la violence électorale à un moment donné demoon ba nga xamante ne c'est très c'était très très très palpable ba tax président de la république à bien des égards def na ay sorties wax ak euh, nation bi à travers ses adresses à la nation di woote à la réconciliation au oh, pardon defe naa loolu sax nag moom moom mujj indi euh, la libération des détenus dits politiques euh, nga nekk ku xam-xamam màcc ci mbirum politique au-delà de votre casquette euh, d'enseignant à l'université de Wisconsin aux États-Unis boo doon proposer une solution de sortie de crise lan lay doon ci jamono jii nii. xam naa kon ce sera une répétition dans la mesure la la solution de sortie de crise. Mm-hmm. du génn dul. Macky Sall abal. Mhm. abal leen léegi nag du question ay affaire loi et genre bis la bëgg def. Mhm. amnistie. Mhm. wala yu mel du loolu mooy régler problème bi. yow jàppoo ne loi d' amnistie bi. parce que projet bi loi bi adopté nañ ko en tout cas en conseil des ministres. waaw conseil des ministres waaw léegi. Euh, mu war a dem ci assemblée nationale loolu tamit jàppoo ne mën na bokk ci li tempérer ardeur yi. non dama jà dama jàpp ne loi d' amnistie tant que liiruloo texte bi. Hmm. parce que on am on amnistie des mhm. lan la ñu amnistier. Mhm. mais nag il a dit que. Ah. Euh, concrètement parce que amnistie boo amee dafa am fourchette de temps bu muy concerné. waaw mooy mooy depuis deux mille deux mille vingt et un deux mille ba mooy mooy. Ah, c'est très dañuy amnistier képp koo xam ne da nga def voie de fait. da nga rey nit. Hmm. da nga agressé da nga sàcc da nga violé da nga def lii da nga def laa lan lan la ñu amnistier. Hmm. wala dañuy amnistier ñi nga xam ne ñoo bokk ci pouvoir bi. rey ay ay ay ay ay manifestants. Hmm. yi nga xam ne ñoo rey ay manifestants utiliser des armes de guerre contre des un peuple désarmé wala. au moins def nañ précision comme quoi que ah. mbirum Ousmane xamante ne moom moo lëmbi réew mi. waaw surtout de deux mille vingt et un à deux bokk ci. bokk kon kon kon léegi donc kon si loolu téye nañ Ousmane Sonko. ñu a jàpp ci benn benn buum. waaw ñu mun a jàpp tout à fait comme ni ko waxee. ñu ah. mun a jàpp ne xëy na. Ah. manifestation yi fi am yaa yaa yu mort d'homme y a eu peut-être des histoires de détournement on parle d'achat d'armes et tout ça xëy na yooyu dañ koy amnistier. waaw d'accord su fekkente loolu bëgg def mais li man man li ma gëm mooy hmm. lépp loo xam ne loxo moo ko nos hmm. loxo mën na ko fecc comme li ñu doon wax ci loi Ezzan suñu për bi ñuy MRDS bi ñu njëkk wax moo doon dañ doon xeex loi Ezzan fal ko dindi ko fi. Hmm. Euh, mooy bi ñu amnistier les les assassins de de kii maître Babacar Seye. kon ñun dañ loolu dañ ko waroon dindi. su ñu amee fi beneen amnistie gouvernement su changé état bi su changé kii régime bi su changé amnistie boobu dañ mën nañ ko dindiwaat assemblée nationale mën a dem ah, dindi ko. Mhm. donc lu ci def plan bu ñu mën le futur moom. est-ce que. Mhm. Et proposition bi président de la république bëgg a dugal à l'assemblée nationale àndoo ci amnistie bi. waaw c'est-à-dire que àndoo ci boo sañoon amnistie boobu du am. non non su ma sañoon amnistie du am su ma sañoon. Mhm. na dem rek na dem su demee gars ñu toog waxtaan loolu moo indi loolu moo indi lu ñu wax jàmm su demee ça veut dire que la classe politique va se retrouver autour de la table en dehors de Macky parce que li fi am li am tamit dëgg la am na benn benn professeur bu ko wax sax sax euh, démb nous sommes dans l'esprit du dégagisme man j'embrasse le dégagisme à l'heure actuelle parce que fu mu nekk nii lii situation bi ñu dund yëpp moom moo ko moo ci dugal boppam man loolu laa gëm. ci naka. ci naka moom moo commencé à faire un vide au niveau de de de, de la classe politique. Mmh. réduire l'opposition à son à sa plus simple expression. Mm-hmm. far na mu dajeeg doomu bàjjenam la façon dont defee face à face ak Ousmane. Mm-hmm. moom moo moo créé phénomène bi. loolu la ñëpp ñëpp di wax moom moo créé phénomène bi. Mm-hmm. su àndoon ak intelligence wala ñi muy àndal su fekkente ne comme li ñuy wax ni euh, buur euh, aayul dàkk yi ñoo aay ñi nga conseillé peut-être ñoo ko dugal ci góota mhm. xaw ma mhm. mais li mu bëgg wax ni mooy moom si boppam moo mën a dimbali boppam nan lay dimbali boppam mooy mu dem mu dem mu bàyyi fi conseil constitutionnel mu bàyyi fi assemblée national assemblée national man li ma gëm mooy c'est le président de l'assemblée nationale qui doit diriger la suppléance mhm. loolu moom du ma dugg ci ay du euh, ñu wax ni sémantique. li mm-hmm. euh, Ibrahima euh, Ismaël Mansour Madior fal di def di wax ay sémantique non la vacance du pouvoir veut dire. day dugg ci ay glissement sémantique. waaw <laughs> sémantique quoi loolu moom dugg ma si. mais loolu laa gëm mooy solution mm-hmm. léegi nag su su demee gars yi mun nañ toog tout la classe politique discuter encore sous la direction du président de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. gars waxtaan xool nan la ñuy changer lan la ñuy def inclure le 19. xool dans quels critères dans quelles conditions ñi nga xam dañ leen spolier euh, nan lañ mën a xool seen dossier encore mm-hmm. mais li mais li mu bëgg wax par exemple en deux mille dix neuf y a eu beaucoup de spoliés mm-hmm. am na ñoo xam dañ dem dañ dem élection élection présidentielle mm-hmm. seen parrainage ñu sànni fële. Mhm. mais est-ce que ñooñu xuloo nañu. amoon amoon na coowa on se souvient du cas de ñoom Bougane Gueye. ñoom voilà exactement ñoom 800000 parrain après mhm. ils se retrouvent recalés et tout ça. Mhm. malgré tout le processus se poursuit. se poursuit non pour moi. voilà alors on entre dans la deuxième partie. Euh, docteur Ousmane Diallo comme ni ma ko waxee ci présentation bi yow yaay le secrétaire général du mouvement de la réforme pour le développement social. le MRDS mouvement qui passe inaperçu boo ko waxee euh, ñu bëri docteur il se pose des questions mouvement boobu moom euh, kañ la juddu nan la demee lan la fi def ñen ñoo ci nekk quelles sont les personnalités autour de ce mouvement là yan leeral nga ci mën a indi en tant que secrétaire général bon euh, MRDS mouvement de la réforme pour le développement social mu ngi judd en 2000 2020 2001 la ñu am suñu récépissé mooy après la l'alternance mmh. mais l'idée du projet de société jàgg na judd mm. c'était depuis dans des années 93 bi ñu génnee 88 dem 93 on s'est rendu compte ñun en tant que cadre mm. en, en tant que cadre intellectuel euh, fi fi fi réew mi toll mun noo toog rek nekk si jàkk yi donc il y a une petite connotation religieuse mmh. du mouvement religieux mm-hmm. donc ci la ñu génn ñu toog waxtaan ñu teg ñu ne léegi ñun lan lañu mun nañ ne mun nañ créer un parti légal mhm. en respectant les chartes de la constitution mhm. euh, ñu ñu théoriser ko daganal ko xam ba taxaw ne léegi suñu ñëwee lan la ñuy indi mhm. est-ce que dañ nekk un parti figé wala un mouvement ñu ne on a on préfère un mouvement parce que pour décliner euh, le changement dans le temps parce que euh, tout parti doit s'adapter au temps ñu ne révolutionnaire wala Mm-hmm. mais noonu non ñun affaire révolution violence dañ koy teg de côté parce que on a vu ce qui se passe dans le monde mm-hmm. léegi ñu ne on décide de faire euh, de la réforme comme mm-hmm. suñu mode d'action suñu finalité mooy le développement social parce que gis nañu du question ay tabax ay ay building mooy tax nga ay immeuble moo tax nga développé wala ay tali yu mel noonu tant que defarloo doomu defarloo doomu aadama bi le Sénégal est de tout mhm. boo xam ni tamit dafay ancré sur ses valeurs. Mhm. surtout ses valeurs traditionnelles islamiques religieuses et cetera. Mhm. ñooñu ñoo mën a yóbbu réew mi. ñu remarqué woon ni tamit ci suñu diagnostic dëkk bi dafa am dafa demee ñaari boor. dañu am ñoo xam ne lii sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doon wax. Euh, mooy les préfets. de de des colons. mooy ñoom Senghor ñi nga xam ne ñoo yoroon réew mi. une partie peut-être vingt pour cent yoo xam ne ñooy francisants ak des arabisants ak ñoo xam ne jànguñu et on on se di que société bi nu muy doxee dafa nekk société boo xam ne dafay dafa dafa biaisé dans la mesure où francisants yi ñooy dem kanam soo par exemple suñu suñu constitution lan lañ njëkk a wax mooy la nature de la république wax la lan la mooy suñu langue nationale mhm. langue officielle français munoo nekk président soo dégg soo déggulee France soo déggulee France munoo bind France ñun mm-hmm. yooyu dañ ko war a dindi mm-hmm. donc ci boobu lañ ne kon ñun dañ def réforme dans la mesure dañuy proposer mm-hmm. donc en 2007 ñu dem élection législative ñu am benn député mooy Imam Mbaye Niang suñu président donc parti bi MRDS kenn du ko xam mais Imam mbay Niang la ñu gën xam moom la ñuy dégg waaw moom la ñuy dégg donc Imam Mbaye Niang moo ko moo ko dirigé depuis 2000 ba 2017 après il y eu un changement au niveau du parti euh, ñu euh, docteur Ahmed Sall jël relève bi. Mhm. bi mu jëlee relève bi jamono jooju la Ousmane Sonko di génn. Mhm. donc il euh, se jàpp jàppale ko ñoom Assemblée nationale en 2017. 2017 mhm. léegi nag on l'a soutenu aux élections présidentielles donc man je suis revenu en 2021. Ah, ah bon MRDS Sonko la soutenir en 2019. suma suñu cadre yëpp presque ñu sommes sont dans le Pastef hmm? tous nos cadres mais eh, bu ñu bu ñu bu ñu déggee li fi détaillé docteur euh, Ousmane Diallo en 24 ans le projet de société était là parce que de 2000 à 2024 maintenant je pense que c'est à peu près 24 ans 24 ans waaw un mouvement qui vit au Sénégal 24 ans après avec euh, un projet de société aussi ambitieux que ni nga ko décrire nii fait-il que mouvement bi kenn du ko dégg fenn cest a dire que du ngeen mën activité politique da ngeen ko créer rek après pour dem soutenir Sonko en 2019 après c'est fini non non non qu'est-ce qui fait que on ne entend presque pas la scène politique avant mmh. entre 2000 ba 2017 mmh. le MRDS était présent dans toutes les émissions mmh. dans tous les débats par exemple en 2010 aux États-Unis mhm. man man maa orga man ak ñoom waa RTAS ñu organiser les assises nationales aux États-Unis aux États-Unis aux états bi ñu dem élection aux États-Unis ñoo jëloon deuxième ou troisième. Mhm. et kii 2007. Mhm. ñoo jëloon deuxième ou troisième aux États-Unis mhm. donc après après le pouvoir en place. ñu daal di dem. Euh, ba 2000 problème yëpp fu mu commencé on a eu deux députés. si deux députés liggéey bi ñu def à l'Assemblée nationale. Mhm. benn mhm. la loi sur les, la modernisation des daara. MRDS. Mhm. la loi sur le tabac. MRDS. Euh, kii l'inclusion des des arabisans. dans l'administration. MRDS. la standardisation. du bac arabe. MRDS. loolu yëpp ñu ngi ko doon liggéey di liggéey ak sëriñ si di liggéey ak xam lan bi 2017 2017 ñëwee mën na am foofu la suñu suñu kii bougie fay. Mm-hmm. léegi nag bi bougie fay. xam xam nañ ko déclin bi commencé. Hmm? ma ne foofu la déclin bi commencé en 2017. non nous étions dans une dans une dans une mouvance boo xam ne philosophie MRDS mooy lii su ñu gisee koo xam ne mën na porter projet bi. Mm-hmm. li ñu def mooy dañuy jël sa dañu jël projet bi tegal ko. Mm-hmm. xoolal. jox la suñu document d' orientation jox la suñu projet société est-ce ngoon ko Ousmane Sonko bi ngeen ko soutenir en bien sûr. parce que entre temps suñu cadre ñooy toog ak moom waxtaan ak moom suy def suy def discours politique ñu toog ñu wax ci suy def dara ñu wax ci suy programme ñu wax ci par exemple euh, bi Covid bi ñëwee. Hmm? bi Covid amee. Mhm. Ousmane Sonko il était assis avec nos médecins. les médecins du MRDS. Mhm. ak yeneen cadre ñu toog. pour def une déclaration si lañ ko ne bu mu dugg ci Covid Covid 19 bu mu ci wax parce que li amoon ba am durant Covid moo ñi amul xam-xam ci médecine wala santé publique ñoo doon moo ñoo yore woon micro bi. Ouais. créer ay ay ay théorie de conspiration et cetera donc il falle que les intellectuels du MRDS taxaw les cadres taxaw wax moom léegi nag euh, du ma de fait bi mm-hmm. mooy. actuel actuellement duñ mën nañ wax le MRDS est dans un état de mort clinique. Mhm. mais lan mooy indi loolu loolu laa bëgg a xam justement. mooy jàppale Ousmane Sonko ànd ak moom fàtte suñu bopp MRDS noonu la mos a doxalee. amuñu mhm. amuñu ambition président mais mais bu ngeen ko defee euh, docteur Ousmane Diallo jàppale Ousmane Sonko ak influence bi mu am aura mu am entre deux mille dix-neuf à mhm. est-ce que cela veut dire que moom ci boppam. Euh, fayul naar bi xorom bi. mooy tuum est-ce que ça veut dire qu'il nous a pas rendu la pièce de la monnaie. so xam nga su fekkente ne danga nekk dans un mhm. état de commerce. Mhm. danga jàpp ni damay lay rokk mi rokke la. Mhm. problème MRDS mooy amul loolu. MRDS altruisme lay doxee. da lay ñëw jàppale la nga yóbbu liggéey mais jàppale en politique ça doit être un partenariat gagnant gagnant malheureusement nag ni nga waxee ni malheureusement ça veut dire que jàppale ngeen Ousmane mu gañ ci mais yéen gisee loon ci seen bopp est-ce que concrètement c'est ça kii MRDS mosu seet boppam loolu mooy suñu problème loolu laa doon wax ak Imam Mbaye Niang depuis le début mm-hmm. euh, bi muy bi muy nekk assemblée nationale mm-hmm. ni ko dañuy bàyyi suñu esprit esprit de sacrifice mm-hmm. ñëw di liggéeyal nit ñi ku ñëw ñu jox la ànd ak yow sans pour autant ñun suñu bopp ñu xalaat suñu parti parce que en fait dafa mel ni ñun sax bëggunoon téye réew mi mais dañu bëggoon jàppale réew mi réew mi dem kanam soo xoolee tey en 2000 quand le le en 2001 le premier discours de l'imam bi mu ko defee bi mu ko defee sama benn xarit docteur Commodore maa ngi koy nuyu mm-hmm. neurologue mu ooyam ooma des États-Unis ne ma yéen Ousmane Diallo yéen am leen programme ma ne ko tax mu ne sa sa sa kii bi sa am imam bi lu mu wax mooy ay éthique ak valeur mm-hmm. mu ne ko mais c'est soo comprendre le problème du Sénégal c'est un problème d'éthique et de valeur en li am Sénégal mm-hmm. mais ba 2004 Kéba Mbaye def son discours sur l'éthique moment boobu la éthique commencé naaw mais ñun depuis 2000 ñu koy wax discours bu am solo ba waaw le mm-hmm. discours de Kéba Mbaye man dama ko ne dama ko tuddee woon sax le plagiat de Kéba Mbaye ah bon ah da nga jàpp ne ci yéen la C'est le même discours. C'est le même discours. Les Sénégalais sont fatigués, etc. Il faudrait que nous. Okay, Mais il, a, il avait utilisé quand même des mots trop, trop forts, quand même. Absolument. Il continue à, à bourdonner dans nos oreilles. Dans nos oreilles, parce que moi, je déglu. Moi, li, li am ba, ba am moy Sénégal ki wax lañuy déglu maanaam kii wax la ñuy xool mhm. mais pas li muy wax mhm. su fekkee kii wax dafa ànd ak li muy wax bu boobaa nag gars yi déglu ko mhm. donc euh, loolu loolu la euh, alors euh, docteur actuellement, on est à quelques mois, si on s'en tient à, euh, aux propositions sorties de, du dialogue national, on est à quelques mois de la présidentielle, à supposer que boobu dina am le 2 juin 2024, comme ko waxee Alors, lan moo nar doon la position du MRDS ci échéance yooyu ñu jëm est-ce que le MRDS restera neutre wala comme ni nga ko waxee ni Ousmane Sonko ngeen jàppaloon en 2019 actuellement il est toujours dans les liens de la détention ay farandoom bëgg nañ quoi qu'il en soit mu génn ci situation mu nekk pour mun a bokk ci élection boobu est-ce que da ngeen di wëy euh, di jàppale Pastef Ousmane Sonko le parti Pastef du Sud bien entendu wala da ngeen di jàppale beneen euh, entité bu nekk ci langue politique bi war a bokk si jongante yooyu noonu. bon euh, MRDS nu mu nu mu tax nu ñu ko ta tëggee. Mhm. c'est pas le secrétaire général qui détermine la politique. qui détermine du kan mooy déterminer c'est le comité directeur donc ce sont les soixante-dix délégués qui viennent des euh, des régions mm-hmm. ñoom ñooy toog mm-hmm. décider quelle est la marche à suivre mmh. du point de vue politique mm-hmm. et, et ça crée des frustrations moom c'est la réalité léegi nag à l'heure actuelle le comité directeur du parti soutient la candidature de Diomaye de Diomaye Faye de Diomaye Faye waaw su fekkente ne Ousmane Sonko. libéré est-ce que consensus am na ci. donc consensus majorité bi moom la ñu àndal donc y a une petite minorité. yoo xam ne c'est la démocratie. su majorité bi moom la ñu àndal ça veut dire que MRDS. MRDS mi ngi ginnaaw coalition Diomaye président waaw. am na fa ancrage quoi au sein de cette coalition. c'est ça waaw. donc docteur Ousmane Cissé. ànd na ci Ousmane Diallo autant pour moi excusez-moi ah. est-ce que docteur Ousmane Diallo ànd na ci option bi comité directeur bi jël pour jàppale la coalition Diomaye 2000. bon li li am ba am mooy dañ ma def kii pour ma bañ a wax ci affaire bi. pour nga bañ ci prononcer. waaw parce que effectivement a titre individuel. en tant à titre individuel en tant que cadre. en mhm. tant que euh, cadre sénégalais. Euh, depuis 2007. Mhm. maa ngi doon liggéey ak euh, président Mamadou Lamine jàlloo Tekki depuis 2007. Mhm. on a travaillé dans le cadre des assises nationales. ñu dem ba fu mu nekk nii il est candidat. jàppale naa ko li mu ci mën sama kéemtulaay kàttan pour que mu ñu jàll parrainage du point de vue des idées de technologie ak yu mel noonu mm. ba fu mu nekk nii il m'a il m'a nommé wala ils m'ont nommé mm-hmm. parce que moom tam noonu la il c'est un démocrate mm-hmm. comme le président de la conférence des leaders de la coalition Mamadou Lamine Diallo mm-hmm. euh, président Tekki gëm naa ni fu mu toll nii euh, dañu war a commencer déglu borom xam-xam yi ba nag toog teg ci affaire passion. ñoom nu ñu la nommé justement. président de la conférence des leaders de la coalition. Mm-hmm. mais Mamadou Lamine Diallo. waaw. Mm-hmm. très bien donc sa veut que yow jël na sa yoonu bopp. man jël naa sama yoon pour le moment jàppale kële ba élection yi jàll. après léegi y a d'autres dans notre parti qui avaient décidé de soutenir euh, d'autres personnes. est-ce que loolu de contribuer à éclater. éclater le parti. Ex exactement. ce qui se passe euh, euh depuis 2019, hein, c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Mm-hmm. En 2019, quand, quand nous avons soutenu, quand la, les jeunes mm-hmm. ont soutenu qui, euh, président Ousmane Sonko, mm-hmm. ce qui s'est passé, le parti a éclaté. Tant que nous sommes partis, tant que beaucoup nous baignons, c'est une philosophie. Là. Ouais. Tant que nous du fii la ñuy jaar fii la ñuy jaar dans l'intérêt du parti c'est pas le parti qui qui dirige c'est pas un combat du parti ku ci nekk da ngay dem ak sa conscience léegi c'est première fois nag ñu génnee ko fi ma génnee ko fi. wax ko pour askan wi yëpp. mais est-ce que est dina yomb docteur Diallo pour ngeen retrouver waat après. lu ñu lu ñu ñii aw nii ñii aw nii ñii soutenir euh, des partis antagoniques. waaw war a dem si jongante bi en 2024 la présidentielle. 12 juin à supposer que dina am le 2 juin 2024. Mhm. après au niveau du MRDS vous pourrez vous retrouver ensemble. C'est toujours comme ça. En, en, en, 2007, on en eu mille dix En 2019, nous avons eu des contradictions. ko Je su le premier à le sortir. Mais toujours dañu dellu sur le fondement, le projet de société. Parce que loolu moo am solo pour le moment. su quand am y a une divergence de vue. Dañuy dem ba pënd bi wuri ñu togaat parce que li ñu bolé mhm. mo gën. moo gën moo gën a yàgg. amoo leen amoo leen ay ambition briguer suffrage sénégalais au niveau de MRDS wala vous n'êtes que mouvement de soutien à chaque fois booloo. merci beaucoup. bu élection ñëwee ngeen am fu ngeen dem jàppale nit ñi après retranché wu. c'est parce que loolu mooy euh, au philosophie MRDS. déedéet c'est la première fois. MRDS mmh. dem en coalition. 2001 nous sommes partis seuls. 2007 nous sommes partis seuls. 2017 nous sommes partis seuls. Mmh. 2012 bi ñu soutenir Macky Sall le MRDS a été le premier parti mhm. à intégrer Macky mhm. ci laa am problème parce que je te compte mhm. mais gars yi dem dawal dawal dawal ba gis luñ ba gis daal di daal di génn ci coalition ci benn bokk yaakaar d'accord léegi nag moment boobu amoon nañ ay divergence mais on s'est retrouvé après nous sommes allés aux élections seuls en Ouais. En 2012, 2012, élection 2012, après, durant la coalition Macky 2012. Macky 2012, bi ñu waxtaanee mu ne non ñun daal di daf ñu jox ay xaw ma ministre xaw ma lan. Mhm. conseiller affaire mel noonu ñu ko non non non ñu am nañ force politique boo xam ne mën nañ demal suñu bopp. Mhm. ñu demal suñu bopp. am deux députés trois la ñu waroon am gars yi dindi benn bi. daf daf ñu deux députés am deux. deux députés muy muy euh, muy Imam Mbaye Niang. Mhm. ak docteur Mame Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm. Euh, ci loolu nag. ñun MRDS loolu moo doon suñu philosophie. Mm. philosophie demal suñu bopp toog ak askan waxtaan ak askan lu ñu am ñu jël. Mm-hmm. c'est à partir de 2017 la ñu am problème classe bi dirigeant yi jël gis ni kii. Mm-hmm. di Ousmane Sonko ci suñu ci suñu trajectoire la jaar. ci ci programme boo xam ne ñun noo ko bind tëral ko ci la jaar mm-hmm. génn. gars yi jàppale ko parce que ñoom ñoo bokkoon philosophie. Mhm. parce que ñoom loolu ñu gëm dañ koy jàppale dañuy jàppale ki nga xam ne mun na yóbbu porter projet bi. Mhm. mu porter projet bi am ci lu mu ci changé soppaliku. Mhm. ba man ba deux mille vingt et mille dix neuf ba deux mille vingt et laa ne attention li ma gis. du du euh, du nuñ koy waxatee ci wolof. li ma gis xaw ma. le, le futur est, est un peu sombre. parce que loolu laa gis. dalul sa xel quoi. waa dalul sama xel. Mhm. ñu daal di waxtaan gars yi dañu fekkoon dans la dans la lancée d'une fusion entre la MRDS et le PASTEF. Mhm. maa ci teg sama wax ma ne fusion du am parce que li ma gis dalul sama xel. Mhm. Euh, benn une lettre prédire li nga xam ne mooy am ba am na mais bof. comme li ñuy wax rek léegi yan saa da ngay gis ni asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum da ngay bëgg dara nga yaakaar ni moom moo gën ci yow fekk gënul ci yow fekk gënul ci yow waaw mhm. nga bañ dara tamit fekk moom tamit gënul ci yow fekk moo gën ci yow léegi nag est-ce que débat bi ñu may am bi ñu may wax tey tey ji mooy est-ce que waroon naa waruma la moom bàyyi rek ñu dem fusion c'est ça le débat à l'intérieur du parti tout à fait mais man j'avais refusé parce que dama gis gëmoon ni MRDS am na valeur boo xam ne valeur ajoutée mhm. dans la société sénégalaise mhm. si le discours des politiciens a changé c'est pas c'est parce que c'est grâce au MRDS si am ay ndongo daara mhm. yoo xam ne dañuy taxaw tey mhm. di fëgg seen dënn c'est parce que c'est le MRDS est passé par ici MRDS mhm. moo xàll yoon bi pour may leen voix au chapitre alors très bien docteur xam naa li ñu dese ci temps bëriwul on aborde juste la dernière question euh, maa ngi ko doon wax cinq euh, enseignant en même temps formateur à l'université Euh, de Wisconsin, wow. aux États-Unis. Wow, aux États-Unis wow. voilà donc euh, dund fa pendant au moins vingt sept ans ñëpp si fii ci réew mi yaa ngi waaj a dellu mais euh, mu amoon ci lu ma la bëggoon a euh, interpeller situation euh, des émigrés aux États-Unis dernièrement on en a beaucoup parlé des migrants yi emprunté la voie du Nicaragua et tout ça nga nekk fa xam fa lool lan nga ñu mën a wax ci situation émigré yi nekk ci États-Unis bon euh, dinaa dinaa massawu askan wi dinaa massawu vraiment ñi nga xam ne ñoo gëm ni euh, l'appel du large comme ñun ñuy dem très mm-hmm. euh, gis ni peut-être que wërsëg bi yàlla moo xam fu mu ne mm-hmm. émigration clandestine bi dafa am ñaari problème mm-hmm. dafa yàgg xam nga commencé wul léegi le deux mille seize sax gars yi nañ dem ndànk-ndànk déjà en tout cas pour concerne la voie de l'Europe euh, Espagne Italie c'est vers 2004 2005 waaw 2004 2005 waaw ouais. après léegi Nicaragua bi lu bees mais avant c'est pas lu bees parce que depuis 2017 2019 am na benn mbokk boo xam ne ñu ngi koy wax euh, mm-hmm. Cheikh Omar Niass mm-hmm. Kara mm-hmm. li mu def li mu defal immigré yi kenn deful ko immigré yi dafa taxaw jël këram génne waa këram jël kër bi mu am ak jàkk bi mu yore def ci plus de quatre cent migrants ñoom est-ce que di leen jàppale est-ce que ñoom yoonu Nicaragua bi la ñu jël ñoom ñoom Nicaragua li ci xa li ci xanaa gën a doy waar mhm. mooy dañu wax dañ ngay toog di waxtaan ak booy mhm. booy na la dépassé nañu huit millions pour mun a ñëw pour mun a ñëw am na benn booy bu ma wax ni moom dafa moom euh, dafa am entreprise de construction mu mhm. bàyyi lépp ñëw ma ne ko pour la man dafa jàpp ni su ñëwee fii peut-être ci lay gën a gaaw am xaalis ak ci mel ma ne ko man su ma amoon li nga am du ma ñëw. Mhm. en deux en 1995. su ma amoon as tuut li nga am. Mhm. du ma jógee du ma jógee Sénégal ñëw ñëw États-Unis léegi nag. Mhm. ce qui se passe mooy euh, xale yi dañ ñëw ak engagement. dañ ñëw ak dëgër mais ñàkk xam. règle loi et règlement dëkk ba. par exemple. am na une majorité silencieuse mhm. toppatoo seen affaire maa maa ngi ne ñoom ñoo ñoom ñoo sax importé cak-cakisme cak-cak yi may gis fii hmm. loolu am na fa am na fa ah booy guerrier di livrer di ñafe di livrer di ñafe tous les jours ci sedd bi neige bi am na une minorité bu ndaw ndaw ñoo gën a bruyante mhm. ñoom ñooy toog maanaam yaakaar ni dañu am lu ñuy wax entitlement. Mm-hmm. mooy mooy la. mooy mooy dafa dañ leen dañ leen yoral dara. Mm. nit ñi dañ leen yoral dara jaar nañ ni ko roi guerrier lañ ñëw fii. Mm. dañ leen yoral dara war nañu taxaw. Mm. imposer wu ci kaw nit ñi. Mm-hmm. sonnal ñenn ñi fa nekk. mais li am solo ba am solo mooy le gouverne le gouvernement New York. Mm-hmm. xam nga gouvernement dafa am New York boppam état la. Euh, maire New York li mu def mooy dafa jàppale gars yi. Euh, leen ñu am carte Mhm. identité xam pour identifier leen. Mhm. Euh, possibilité ubbi compte bancaire. Mhm. loo xam ne ñun bi ñu nekkee immigré bu suñu ko am. te ñi mujjee ñëw am nañ ko. waaw ñu mujjee ñëw léegi dinañ jox carte d'identité. waaw boo xam ne mun nañu mun nañu voyage ci biir New York soo amulee carte d'identité moom yenn saa yi policiers yi jàpp la. Euh, sooy déconné ñu dóor la wala fetal la. léegi am na yenn boo yoo xam ni loolu laal leen di ñaan nag. mooy nañ def attention ci ñaari mbir. mooy soo demee États-Unis facilité bi mooy da nga yaakaar ni. mën nga toog di piis ay jigéen wala tàpp ay jigéen hmm. loolu agression sexuelle en tout cas am na mbër mu ci am jafe-jafe de wala nga toog hmm. wala nga toog gis benn nit ku ñuul di jaay yow américain nga déggoo anglais di leen ooye maay xaw ma lan di ko aborder waa non di jaay bandi quoi di jaay rappeur yooyu hmm. <laughs> nañu bàyyi yooyu nañu concentré wu leen tax a ñëw foofu xam ni su fekkee liggéey moo leen fi indi ñu essayé xool nan lañu amee liggéey. Mm. su fekkente ne jàng moo li indi ñu essayé. contacter est-ce que liggéey bi docteur dina yomb sans permis de travail working permit bi ñuy wax. waaw working permit euh, mooy soo naree liggéey légalement fay ay taxes. Mm. mais euh, New York moom li ñu ko xamee mooy dafa am bi ñu wax benn économie souterraine. mooy comme fii nga xam ne li ñu wax euh, l' industrie informelle. Mm. bu moom la ñu jàll tuddee industrie informelle. industrie la. xaalis bari moo si génn. donc lu yor am na nga liggéey donc sans working permit boobu. sans working permit mais c' un travail qui est clandestin quand même. Euh, amul suuf la am na risque ça dépend rek. lu ne amul dara lu amul risque États-Unis. <laughs> docteur temps bi jeex na ñu bàyyi la nga nga tàggatoo rek. ma vraiment di di la remercier. Mhm. Euh, Birama Thioub. Euh, mhm. kontaan naa lool ci mhm. occasion bi nga ma may. ma sotti fi ay samay lan la rancœur mais bu kenn jëlee noonu. waxtaan ak askan wi xamal leen. MRDS demul fen MRDS mhm. euh, boo xam ne man dañ ko bugg dindi léegi ndax parti imam Mbaye Niang mu mhm. ngi fi ba léegi. Mhm. Euh, mais dinañ incha allah ñu def suñu kemtalaay kàttan pour li nga xam ne moom lañ mës a def. ci réew mi. mooy participer wane li ñuy wax la voie du juste milieu. nekk parce que ñun lii Serigne Cheikh Gaynde Fatma bëggoon. moom lañu bëgg dem ba di génnee fi ñi nga xam ni seen xel tubaab bi. daf leen tàggat ci bañ seen bopp xeeb seen mbokk mm-hmm. loolu daal wala xeeb seen bopp bañ seen mbokk. bañ seen mbokk ñu dindi loolu incha mm-hmm. allah. Mm-hmm. très bien di la sant di la gërëm docteur euh, Ousmane Diallo mooy fàttali ne euh, yow yaay le secrétaire général du mouvement de la réforme euh, pour le développement social di médecin en même temps docteur en épidémiologie. Office Health Informatique euh, nekk enseignant ay formateur à l'université de Wisconsin aux États-Unis ñu am mbégte nag doon bokk ak yow plateau bi ni ci entretien spéciale yi euh, di gërëm également ki fari ci réalisation bi di euh, Babacar Sané mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen entretien spécial fii ci Sénégal 7 jaa ngeen jëf.